السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مولم كو خامن رك ياغي تال س ماشين جاكارلو نيون رك نيون لاي نويو دي لا زيار ا دي لا مساو نا خامنا ني تاي موم يفي دا فا نيك لو خامن خول ييب فام لو دون نلا واييو وانا تاي موي بس بي نيو خيو لا 13 اكتوبر 2016 تاي مو نيك اتام نيو اتال اجا ديغن سمير جالو ñu koy ñaanal borom bi subhanahu wa fa mu tëdd lu mu amoon ci yiw rekk yàlla na ko yàlla yéega yàlla xaare ko àjjana ya gën a kawe jéggal ko ay bàkkaaram te dëkkal ko ca soppeem ba di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa moom mi waxoon ne anta maa man ahbabta fil jannati yàkki nga sopp yenay bokk wàccuwaay ca àjjana te xam naa ne ku ko sopp la woon Euh, su ko defee rekk bés bi tey di bés boo xam ne man damay wax ne ñun ñëpp dañ cee war a jàngat que bés la bu dul jaas comme du jaas nag nii mu rafete ci moom war na noo waajal sunu bopp ñun tamit ba yàlla na yéex ni ko olof di waxe ndax alquran sax moom du ko waxe noonu ndax fa iza jaa ajaluha la yastaxiru saa wala yastaqdimuun bu jotee munoo muus ba mu avance une seconde munoo muusit ba mu retar une seconde bu jotee rek da ngay dem kon nag bés bu ñuy dem yàlla na nekk bés bi gën a rafet ci bës bi ñuy taseeg suñu boroom témoignage yu rafet yi nga xam ne itam am na ko yàlla nañ ko yàlla may te nag biddanti du ko maye xol bu lëndëm du ko maye njort lu ñaaw du ko maye li koy maye dëgg rek mooy ni mu meloon ci jikkoom ci jikko yu rafet yooyu yonent bi sallallahu alayhi lu nekk la am juddu ba rafet na taaru na lu nekk am na ko ci moddu teraanga waaye ba ko yàlla nammee sant santewu ko lenn bu dul jikko yu rafet neexul ba neexul waaye dana ko wa innaka la ala xuluqin azim yow ku rafet jikko nga ajaa dégéen nag ku rafetoon jikko la li gën a am solo mooy ànd ak yàlla te àndoon naag yàlla te yàlla waxul kenn ànd naag moom bu dul inna allaha maa sabirin ku muñ la woon ku muñ la woon ci njaboot ku muñ la woon ci àndandoo ku muñ la woon ci liggéeyukaayam waaye ku muñ la woon it ci néegu sëyam kon nag ñu ngi koy ñaanal borom bi subhaanahu wa loolu nga xam ne ay meññant la yu mu jëmbatoon di ko arrosé fruit yi mu war koo lekk ji ca biir àjjana yàlla bu ko ko tere dara tere Adja Degen euh, comme ni ko mbokk yëpp waxee euh, noonu rek la amee ndax euh, Oustaz Abdou Karim wax na ko sànq ak Eva dem Diagne ak macha allah taala Ndiaye suñu nijaay ak Pape ñoom ñëpp Mado témoignage bi benn rek la Serigne Abdoul Aziz dafa am ku ko doon santulu woolu ko ba mu ñëw ñu jox ko kàddu ne ko waxal ci Serigne Abdou mu ne ko yaa baax. daal dina ne salaamaaleykum ñu ne ko déet ah yow tamit loolu mu ne fexe leen ba wut fi lu raw yaa baax dégg nit baax na ba dem gore na ba dem tedd na ba dem sutural na boppam itam ba dem ndax sutura rek moo jara ñaan te mbokk yi nga xam ne yéen a ngi may seetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku sutural nit yàlla sutural la àdduna ak àllaaxira te sutura boobu nag moo bëgg a jeex fii ci réew mi kon nañu jàngaat suturaal doomu aadama te saa yoo bëggee tudd ayibu nit xoolal ci sa ayib boo ko xoolee rek nga fàtte yow sa ayib loolu leçon la boo xam ne ci demu dégéen bii dégéen mag gënu fee mag lépp lu ñuy joxe rek wasatiya bi la amoon mooy juste équilibre bi lu tax nag ñun ñii ñëpp mag ko moom mu dem bàyyi ñu fi kon loolu mooy ne mbir mi du mag mooy tax a dem du gën a baax mooy teree dem du gën a rafet bu doon taar rek kon du dem bu doon sañse rek du dem waaye loolu yëpp teewul yàlla ñëw mu nekk ki nga xam ne moom la ñu gën a bëgg moom la ñu gën a sopp yàlla xëy suba teel rek yeewee ñu ko fajar ne ñu di ngeen xam ne man rek la lillahi lwaahidil qahaar kooku man rek la xam ne diggéen benn doomu aadama amul wowu xolu ñëwoon rek buddi ko ndax yàlla nag lu mu def <laughs> lu ñuy métti lu la déedéet inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon nag li ñuy def rek mooy ñaanal ko yàlla te ñaan gi bu mu dakk ndax ñaan gi kese nag mooy li mu gën a aajowoo fa mu nekk nii la woon saa yu ñu ñaanee rek muy gën a jege jannatul sa ak illiyin ba ëllëg ni mu ko doon waxee bu ubbee fenêtre am rek jàkkaarloog sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy nag euh, jaale waa kër gi ndax euh, benn pilier la boo xam ne daf fi damm te nag remplacer ko moom yombul moom kay da ngay jéem rek comme li Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu waxoon mu ne waxuma damay sol dàllu yonent bi waaye dinaa ci dugal sama tànk même bu ma ëppee ñun tamit du ñu wax mukk dañuy remplacer déggéen Eva du ko wax keneen du ko wax waaye nag dina teg rek toogaayu déggéen moom fa mu ca mën a am rek mu am ko ci li ci des nag ñu bàyyi kook yàlla yàlla na fi gëj loolu la ñuy ñaan di leen ñaanal yàlla yéen tamit di jaalaat ñëpp àdduna bi yëpp monde bi yëpp euh, xolu ñëpp la dégg ba léegi nit ñaa ngi jël ay avion di ñëw di ko jaale si te xam naa ne noonu rek lañ koy def ba saa yuñ ko fekkee yàlla na yéex su waaxiru daawaana ne alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh